waaw bu ñu amee nguur bu ñëw mel ni ku leen jox lépp ba pare ne leen nenu bu leen wax noppi leen pourquoi ñuy noppi parce que yàlla bëggul ku ñàkk fayda te Sénégal waruñu ñàkk fayda waruñu teg lu ne ñu nangu ko on veut juste dire aux gens mais sa ñun ci dëkk bi la ñu bokk loo xam ne dañu koy fayloo ñun ñu war ko fay ñun ñëpp. ay nit di ko signé mais bu ñuy signé du ñu xool li ñoo signé mais def nañ ko on s'en fout vous vous taisez voilà c'est comme ça point barre. Mhm. xanaa lii lii doy na mbubb tubéy lii ëpp na sax yére pendant qu'on nous ramène à des débats de bas étage voilà le drame qu'on nous pose et ce sera la même chose bu ñu moytuwul sur le BRT et tant de, de projets sur le port de Ndayane sur le port de Dakar sur l'aéroport sur pas mal de choses un État qui dépasse dans un sens ou alors qui emprunte dans un sens. Abdoulaye Wade était à milliards de dettes. Mm-hmm. Le président Sall, en 10 ans, et à plus de 11 000 milliards de dettes. Le seuil, c'est 70 le Sénégal le dépasserait. On va où Et ce qui est offusquant, mooy bu leen wax bu leen wax bu leen ñaxtu bu def dara bu fi kenn yëngatu je vais choisir mes adversaires waruma bokk dinaa bokk je fais ce que je veux et et je m'en fous kilifa diine yi on les respecte pas tout ce que vous voulez et nous tous sénégalais on est là à regarder à accepter et à se mais c'est pas possible nguuru Sénégal mooy wax dëgg wala tubaab yi ñooy fen te apparemment tubaab yi ils sont ñoom ñoom dañu wóolu seen bopp mais am na keneen sàmm am na keneen dafa am keneen nag. keneen dafa am keneen nag. dafa am keneen maa la wax kenn kar dafa am keneen. keneen kat la. kooku nag mooy mooy aali gi. kan moo la aali gi. Momar Gueye. kan moo la Momar mhm. Gueye. Mhm. xamuloo Momar Gueye yow xam nga Momar Gueye sàmm ko. Momar Gueye moom nga waxoon ni moomoon projet terre bi moom moo ko njëkk a ah, kooku moo la Momar waaw. kay Momar dafa ne. Mhm. dégg naa la. waay yow waay yow waaw ah, ana Momar Gueye moom fu ne. dafa am lu Momar wax lu important. Hmm. baal leen ma rek nii. Mhm. yow wax nga ko sànq ci suba loolu nga njëkk wax ci suba fa Roqaya. Mhm. lépp yokku na lépp. Hmm, dégg nga lépp yokku na. Momar Gueye mu ne. Et on me disait, mais monsieur Gueye, toi, vous êtes connu ici, mais je n'ai jamais reçu de réponse. <laughs> léegi Momar Gueye. ans en France, en Europe, on va dire, un ancien employé de Alstom, mm. des années et des années, mm-hmm. qui a travaillé sur beaucoup de projets, qui a assisté à la réalisation du TGV. Du Coradialinte. waaw ak TGV aussi kon. TGV. <coughs> nekk mag du ma ci sore mhm. est-ce que mën nañu dugg ci benn affaire teer bi dina daw niñ ko waxee le 27 am nga ci yaakaar. Euh, waaw bu njëkk dama doon wax ne du daw. que lu taxoon nga wax ko. ah lu taxoon nga wax ko. parce que li ñu waroon def lañ ko deful. te euh, projet terre bi man mi maa ko def. loolu pour Sénégal yëpp xam ko. waaw pour Sénégal yëpp xam ko. man Momar Gueye man maa defar projet TER du tey nag. Mhm. c'était depuis Ablaye Wade. lu taxoon nga def ko. Euh, pour le Sénégal parce que je suis un patriote. man j'ai la nationalité franco-sénégalaise. est-ce que c'était nécessaire. Euh, oui bi ma koy def et quand je quand de ça mooy bi Ablaye Wade di wax que Sénégal dafay def TGV. Mhm. man maa bind wax ko ne ko TGV mënul am Sénégal parce que. on n'a pas assez d'électricité pour illuminer nos rues. Mm-hmm. amuñu courant bu doy buy taal mbedd yi. Mm-hmm. am euh, nii di faire fonctionner nos frigos congélateurs qui tombent toujours en rade. Mm-hmm. mais par contre euh, Alstom vient de créer euh, genre train bu ñuy wax la Coradialinte bi ma ñëwee Sénégal ba léegi benn yoon laa ko mos ñu bind ko ci kii bi mais le Coradialinte noonu laa kii bi tudd. Mhm. Terre, on dit TER, TER. Mais c'est pas TER. TER, c'est train express régional. nga dem Allemagne ak France ak fu mën di nekk TER mooy train express régional. Mhm. mais la rame qui constitue ce train là ce ce ce ce comment dirais-je là bi ñu fi indi nii ça s'appelle le Coradialint. bon pour lan ma choisiroon ko parce que man j'ai travaillé sur les trois premiers prototypes et que. huit semaines où j'ai travaillé, nous avons reçu des remerciements pour notre participation à la réalisation de ce truc-là. Et comme M. Verde parlait de ce problème, en réalité, euh, pour dire rapidement que euh, M. Verde, je l'ai jamais rencontré, mhm. mais j'ai toujours écrit depuis 2002. Donc, ça ne date ce problème-là. Et après, il y a Tierno Alassane Sall qui a suivi. qui ministre des infrastructures mhm. moom it wax dëgg yàlla gisuma ko mais bind régulièrement pour leur pour les informer donc euh, ba ci sama dernière correspondance ci laa dem au ministère euh, pour dem rencontrer Abdou Ndéné Sall mhm. Ah, mhm. par l'intermédiaire d'un de ses beaux-frères qui a le même prénom que moi que j'ai rencontré euh, fële au de tir pistolet à Lamine Gueye mu ni ma mais doo ñu jàppale ci affaire que ma ne ko mais y' a pas de problème Momar su kii nga moom moo ma jëlal rendez-vous ma daan moom jour boobu moom mujjul dem mais man dong man maa dem rencontrer Abdou Ndéné Sall il était secrétaire général au ministère pour lui remettre euh, pour lui remettre euh, l'avant-projet génn dugg ci ministère Thierno Alassane Sall bu ma ñëwee on me disait mais monsieur Guèye toi vous êtes connu ici je dis mais je n'ai jamais reçu de réponse le, le, gars me dirait, mais il n'y a pas de problème, cette fois-ci tu vas recevoir des réponses. Mais je n'ai jamais reçu de réponse. Donc pour dire vrai, ce problème de, train-là, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de, depuis Ablaïwad, euh, que, que, je remercie, que je félicite, parce que mon Boumoudjogé France, il va falloir réhabiliter le chemin de fer Dakar-Saint-Louis. Mm -hmm. voilà, il faut que ñu adopté ce qu'on appelle le Coradialint pour le futur aéroport jas Dakar futur aéroport jas Dakar lii moo taxoon ñu wax euh, kii bi man nag j'ai travaillé sur les prototypes c'est moi qui ai réalisé ce projet là mu ngi nii mm-hmm. un projet c'est ça mm-hmm. dama wax ne ku def projet bu réhabilitation de chemin de fer si ce n'est pas Momar Gueye ce n'est personne d'autre Hmm? waaw mais dama ko defoon parce que man je suis un Sénégalais wutu bon quand je remettais ça à monsieur Sall je lui disais que hmm. euh, plus de quarante ans que je suis en France j'ai travaillé en France j'ai à la réalisation de ce au Sénégal mais il faut savoir hmm. commencé au Sénégal où j'ai été au chemin de fer en

man li may wax dama ko xam du loo xamante ne bi dama ko for wala ma di wax ni rek pour perturber la situation wala ma bëgg a porter préjudice à quelqu'un non j'ai dit le projet je l'ai fait pour que mu mun a servir au Sénégal surtout pour les techniques nouvelles du chemin de fer parce que j'entends parler que ne da ngeen di def chemin de fer ñu dugal fii nouveauté yi waaw d'où euh, le un mètre cinquante que j'ai préconisé depuis Thierno Alassane Sall que ni il faut que Sénégal là c'est zéro mètre quatre-vingt-dix qui date des années dix-huit ans. mooy raay bi ñu am nii zéro mooy raay bi ñu am nii. actuellement waaw raay bi ñu am nii. te raay bi ñu am nii wax dëgg yàlla euh, dama yaakaaroon ne dinañ ko bàyyi ndax l'arrivée du TER mais TER comme l'a dit euh, démb ci euh, <laughs> nu mu tudd Idrissa Seck. oui qui dit que ni le le le le chemin de les sept cent cinquante-quatre milliards yi ñu defoon pour kéeg yooyu. léegi on se trouve avec 36 kilomètres mais non les 754 milliards de budget man mii maa ko mu ngi nii ci ci document bi mu ngi nii c'est moi te loolu effectivement c'était pour refaire tous les chemins de fer sénégalais en grand taxul foofu mhm. taxul foofu 754 mais c'est le même montant que le bi amee réseau ferroviaire bi Abdou Ndéné Sall moom la wax mais malheureusement bi mu ko waxee bi mu bi mu wax dafa ne Dakar Kidira Dakar Kidira mu ngi nii moo ko wax dafa jëkkoon wax sax cinq cent cinq cent sept milliards mhm. mais man le le budget le le projet que je lui ai donné moom en mai euh, bi c'était sept cent cinquante quatre milliards pour tout le réseau national le réseau national parce que encore à Jalint, quand je faisais le projet, coûtait 1 milliard 666 millions. Pas 2 milliards. 1 milliard 666 millions. Et je ne mens pas parce qu'il y a les documents euh, d'Alstom. Coût, coût est de Hôtel Alstom. Euh, Nous devons xool ko ci n'es rek di nga xool Coradiantine la jar bi ma jëkkee ñëw fii la fois dernière je n'osais pas venir parce que je me suis dit gaañi kat budget bi ñu def dafa bari mais euh, dama dugg ci net bi pour xool combien vous aujourd'hui quatorze ans après un Coradiolite alors j'ai trouvé que ni l'Arabie Saoudite avait commandé les mêmes trains que nous mais avec une petite amélioration mais benn dépassé wu ci quatre milliards cinq cent alors moi je me suis toujours posé la question très sincèrement c'est pas pour semer la zizanie ou des trucs comme ça man sax wax dëgg yàlla y tellement de choses yoo xamante mun nañ ko wax mais on n'aura pas le temps euh, dama bugg rek ñu xam ne euh, tey jii dugg nañu ci gudda na mu ko waxee. Euh, mais sur sur le 1 sur le 1 mètre 50. oui 1 mètre 50 bi bu ñu ko defoon chemin de comme ni ma ko waxoon c'était pour faire comme la France une question de stabilité sécurité vitesse par conséquent un rendement économique. Mm-hmm. on aurait même pu faire le ferroutage c'est-à-dire comme ñu ngi jooytu di kaas euh, autoroute bi xaw ma bi kaar dem Mali yàq tali yooyu mais on aurait pu faire passer les camions et les conteneurs sur les sur les euh, sur les wagons ce qu'on appelle le ferroutage on pouvait le faire mais avec le 1 mètre Euh, et je pense que ne c'est ce qu'ils ont dit que ne il allait faire ça. mais d'après moi il y a des journaux qui qui démontrent ce qu'ils ont. mais là mais là là <laughs> c'est-à-dire que ma, euh, euh, ce qui se passe. Mhm. l'État du Sénégal est en train de parler de les deux mille milliards. Mhm. pour le train Dakar Bamako. Euh, je m'excuserai du terme mais je crois que c'est du bluff parce que ils se, ils sont démentis.

ah c'est zéro mètre quatre alors man bu ma déggee ne déjà que ne euh, ils ont contracté un truc protocole d'accord avec les Canadiens j'ai pensé directement que effectivement c'était le zéro mètre quatre vingt que le zéro mètre mais c'est moi qui ai géré le parc de de de euh, la CEFIX société explo société euh, comment dire société d'exploitation ferroviaire des industries du Sénégal. ICS ICS ñoo ma ñëw débauché ma France à Alstom euh, dans le nucléaire fayal ma cinq billets d'avion rapatrier ma famille mes enfants yi tout mu ñëw Sénégal. Mhm. ñu logé ma cité cadre Mbaye Mbaye. Mhm. j'ai fait cinq ans ak ñoom man j'ai eu mes diplômes général maître trois. avec, avec, avec les Canadiens. Pourquoi aujourd'hui ils ne pensent revenir en Parce que je ne suis pas le seul. y a beaucoup de Sénégalais qui ont eu cette formation-là. Mm -hmm. Pourquoi on ne les a pas euh, euh concertés pour voir affaire problème, problème aux Canadiens mais il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'on qu qu qu risque sur le 0,90 euh, Vous Le président Macky Sall, euh, euh, il n'a jamais reçu mes courriers. Pourtant, j'ai toujours écrit. Depuis 2016, je lui ai adressé des courriers pour redresser la barre. parce que c'est que nit ñi fi ñuy mais mais ci écran parce que man personnellement. j'ai écrit woote naa bind naa. je suis allé même Olof Ndiaye na buur aayul même je suis même euh, à la présence plusieurs fois pour déposer mes courriers am déchargé mu ngi nii ah. tous les courriers sont là tous les courriers sont là pour dire vrai, il y, a des, y des journalistes qui sont au courant de ce truc-là. Il hmm? y a des députés qui sont au courant de ce problème-là que j'ai fréquenté pour leur parler. Parce que moi, je dis que je suis apolitique. Beaucoup me créé à tension, des trucs comme ça. Moi, j'ai toujours voulu que le président ou son gouvernement-là se conscientise pour ramener l'île, moi, quoi. waaw mais man je n'ai jamais eu de réponse je n'ai jamais eu sama intervention yi ma def à la télé je pensais que ne. waaw mais mais je n'ai reçu pourquoi parler du terre pourquoi parler du terre beneen bi moo di ne. Euh, euh, nu mu tudd il faut que nga jël wut garde corps pourquoi pour me préserver madame. <laughs> man yàlla rek laa ragal aw ma kenn ku may. li ngay wax jariñ la li sax jot naa léegi dama lay wuyu balu fetal bi nekk sama jiw mais gàllaaj la léegi parce que demul yàq daggul di deful dara maa ngi sant yàlla. non parce que ça c' est ah. c' est un fait diversifié quand même à à relever tànk bi dafa am benn bal boo xam ngi fi. mu ngi fii ah ça c' est longue histoire mais yàlla may dimbali de nit ñu mbaax ñaa ngi ànd ak man. ñu may mais tey nga def am loo xam ne daf ko jar. Mm. mais tey nga def leen na. sama xalaat ah, ak sama limite peut-être baax na ou pas. Mm-hmm. jege waa APR pour dimbali leen. pour maanaam ne léegi ne ma comme ñoom ku nekkul APR ñoom dañu tëju ba. ku nekkul APR du ñu wax ak aw. mais léegi pour dimbali Sénégal ma wax la rek ma xalaat bo ah. pour dimbali waa Sénégal pour ñu defar. Mm-hmm. comme ñoom ku àndul ak ñoom ñu bedd la. Mm-hmm. neel leen man. damaa bëgg a bokk APR ndax mu mën laa eh, déglu dimbali non non non parce que man j'ai toujours été apolitique depuis mon conviction mais mais nii nii du la wuy de j'ai refusé une bu dee nii du la wuy de mais j'étais au lycée de la Fo euh, Naboucor li ñu def nii xam nu mu tudd dañu jël émission extrait boo xam ne dañ ko def fële ca seen TV cette émission date de quand 2021 euh, C'était l'année dernière. Euh, mhm. ñu ngi ci deux deux ans. Mhm. Euh, xam nga lu tax ñu ñuy rappeler lii. Mhm. baax na ñuy dégg yenn fee xam nga wax na projet wu deux mille milliards Dakar Bamako. araftu na artu na duñ ko dégg zéro mètre quatre vingt dix bi bu ko defee c' est pour cinquante ans cinquante ans dañu war a reprendre pour def un cinquante donc. la chose qu'on reproche aujourd'hui à ce pouvoir mooy pourquoi quelqu'un comme ça mënul accéder à qui décider pour mën a ñu régler rectifier le tir un agent d'Alstom sénégalais ñu def terre ba mu jeex te moo ko xalaat ñu écarté ko ci voilà voilà pourquoi ñu juum te cohérence bi sax ak li nga xam ne moom le journaliste français bi doon wax justement c'est cette société Alstom moom la ñu wax ne moom moom moo construire le TER donc en réalité dafa am similitude par rapport ak moom li muy wax ak le journaliste ah. français li muy wax après ça ce qui m'a touché dans tout ce qu'il a dit woon nañu lu lu jëm ci wàllum TER bi jëm ci wàllum euh, koppar bi mami finalement quand on nous parle de ce projet à coût de milliards et que finalement en fin de compte on nous dit que euh, le TER ne nous